ndeysaan mbokk yi combat boobu mooy dox ci diggante caatu Moussa Dioum ak caatu Arlem ndeysaan ñaari caat lañu caatu Arlem moo xees caatu Moussa Dioum mooy ku ñuul ki moo ñu wan gannaaw ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo attention caatu Arlem door na bëgg a jël tànk bi mais génnaat na attention caatu Moussa Dioum jël na. caatu Moussa Dioum jël na caatu Arlem rasu ndeysaan caatu Arlem rasu na jàppante nañu ñoom ñaar san mbokk yi jàppante nañu attention caatu Moussa jum caatu Arlem caatu Moussa Dioum caatu Arlem laa ilaaha illallah caatu Moussa Dioum caatu Arlem caatu Moussa Dioum caatu Arlem caatu Moussa Dioum caatu Arlem caatu Moussa ma ngay jàpp ma ngay wut a jàpp caatu Arlem attention attention lay ilaaha illallaah bëre oh oh eh laa ilaaha illallaah mais ay bërëkat lañu ah caatu Moussa caatu Arlem lay ilaaha illallaah lu xew lu xew fàq na ko jeex na wala jeexut jeex na wala jeexagul lay ilaaha illallaah hey daw na war na ko ndombo langa mun a war ko ndombo xale ba am na penalty caatu arlem am na penalty day buddi xale ba walbatiku na da cay génn wala du ca génn génn na ca laa ilaha illallah waa mais li neex na caatu Moussa Dioum ndaanaan la caatu arlem war na ko ndombo mu génn ca caatu Moussa Dioum caatu arlem ndeysaan caatu arlem amoon na penalty ci biir combat bi te pratique soo ko amee waroo ko raté da koo war a dugal caatu Moussa Dioum caatu Arlem ñoom ñaar ku ci nekk am nga sa ngem bu moroom ñi ngi déglu wante ndeysaan caatu Moussa Dioum caatu Arlem journée Dioufy production caatu Arlem dugal na loxo ba caatu Moussa Dioum mu ngi puus caatu Arlem mi ngi arrière caatu Moussa Dioum fi mu jàpp arrangé wul caatu Arlem gis nga laa ilaaha illallah ñoom ñaar ñi gi bëree caatu Moussa Dioum caatu Arlem arbitre nee na ngeen taxaw bëre ndeysaan ñaari xale yi jàppante nañu caatu Moussa Dioum ak caatu Arlem jàppante baa ngi bëgg a yàgg arbitre sifflé na avertissement caatu Arlem avertissement caatu Arlem arbitre sifla waat na ñaari attaquant lañu dañuy daje caatu Moussa Dioum mu ngi dóor mi ngi cookaas caatu Arlem mi ngi cookaas gis nga ñoom ñaar ay attaquant lañu duñu wante amul round d'observation ñoom ñaar dañuy bëre dañuy xeex caatu Arlem caatu Moussa Dioum tey caatu Arlem borom sow mi mi ngi cookaas caatu arale mooy ku xees ki caatu Moussa Dioum moo ñu woon gannaaw lay laa ilaaha laa rakk la ci Moussa Dioum laa ilaaha illallah caatu aralem rëpp jël na mu rëpp laa ilaaha illallah lan moo xew dara amagul caatu aralem caatu Moussa Dioum ñoom ñaar dañoo bëgg a xeex ña weccoo ay coup ña ngay weccoo ay coup ñoom ñaar caatu aralem la nga mu ci tànk ba jël na tànk ba day jeex bi yoon wala du jeex ah xale ba rëccaat na ilaha illallah oh oh Caatu Moussa Dioum dafa mel ni mbëru tànk la Caatu Arlem dafa jël tànk bi Caatu Moussa Dioum jël tànk bi dugal ko ci diggante ñaari tànk yi diggante fi Caatu Arlem di defee déplacement fi la tànk bi rëcce Caatu Arlem Caatu Moussa Dioum ñoom ñaar jàppante nañu arbitre sifflé na mi-temps ndeysaan ñaari mbër yi nañu ñopp nopp lu ñëwaat ndeysaan diggante caatu Arlem ak caatu Moussa Dioum caatu Arlem moom moo ñu woon gannaaw mooy ku xees gi caatu Moussa Dioum la ñu jàkkaar lool ndeysaan mbokk yi caatu Arlem caatu Moussa Dioum ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Thiatou Harlem Thiatou Moussa Dioum attention Thiatou Harlem cokkaas na Thiatou Harlem jël jël na tànk ba xale ba euh, rasu Thiatou Harlem Thiatou Moussa Dioum attention Thiatou Harlem Thiatou Moussa Dioum la bott ko oh, oh lu garaaw la doon def caatu Harlem lu garaaw la doon def mais dafa mel ni caatu Moussa Dioum gis nga moom tant waat na ko ŋoobu na gis nga caatu Moussa Dioum da koo bloqué gis nga loxo ba gis nga loxo ba laay laaxee la laay hey caatu Harlem daan na ko caatu Harlem daan na ko caatu Harlem daan na caatu Moussa Dioum lam daan na caatu Moussa Dioum